suñu ko tuddee yuusufa alayhi salaam dàkkantalam mooy yonentëb firi gént alxuraan moom moo ko wax moom moo wax inni raaytu axada achara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytumu lii saajidin hmm? loolu la wax baayam yan xuba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 tey bi yaa ngi tabaski ana kan moo tabaski te nekk jullit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 wa fadaynaahu bi zibxin azim wa tarakna alayhi fil axirin salaamun ala ibrahim mu ne keroog ba nga xamante ne wax na doomam la moom ibrahim ne ko dama gis ci samay nelaw loolu koy leer na ba ñoom ñaar ñu d'accord jébbal seen bopp seen boroom pour def lu mel noonu lan moo xew ñu daal di woo ibrahim ne ko ah ibrahima dëggal nga sa gént gi ah dëggal nga sa gént gi li la yàlla sant ci gént gi def nga ko Ahmed Cissé rey doom moo gën a diis wax saa ruul laay ñaar yooyu ana ban moo gën a diis ana bu gën a diis waaw mu ngi noonu eh, xam nga tey eh, ku ne ngi gént yow yaa ngi gént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 xam nga ñu bari ñu may laaj ne ndax doo tontu ci waxi Moustapha Guèye gi muy wax euh, di wax ne yow lay tontu ci affaire gént ak yooyu xam nga taalibe su demee bay tontul sëriñam sëriñ boo xam ne dafa askanoo ci baay yow nga koy tontul di indi alquran bi baay doon ndamoo ci kaw wàll wi nga koy yàq di tëb ay ba nit dafay rus ngir daf naan taalibe baay moo doon tontu di wax lii euh, di wax ay bayti baay di yàq di yàq maanaaya ak fam jëm gàcce googu doy na tontu su fekkee ne dangay ngay wala da ngay xeex te man ak Moustapha tamit euh, waxuma yar yi waxuma xam-xam yi mais niveau itam du benn moom son la def te son bi boo bu ngeen xamee son luñ dagg la di defar ak defaraat du son boo xam ne. Euh, nit ki dafa ñëw toog di wax dafa préparer boppam di liir di wax te mu ngay yàq man damay def une heure de temps du ma téye kayit ma sax di wax di téye kayit damay contrôler conférence internationale du ma téye man mënuma ko soo ma joxee kayit rek day ngam ndax ku nekk ak lañ la préparé lan ne ci yow ak lu yàlla def ci yow man soo ma binduloo rey nga ma soo ma téyeloo kayit rey nga ma du benn tamit waaye nit ki ne dafay defanteeg yow di utiliser alquran di ko yàq ka tëb kooku wan na leen aw ma xam-xam nit ki ne day defanteeg yow ci taalibe bàyyi la baay bind ñu nettali mu faalewul kooku man dëgg-dëgg duma ma wax ak moom te loolu gàcce gi ci nekk dama ragal ne sa nit ñi xamuñ ko yow nga ne sa sëriñ ngay tontu ngay tontu di daanu jikko ko la yar ko loolu dafay wane adresse bi ne sëriñam moo amul xam-xam dontu ne du loolu moo tax islaam dafay tànn ñu koy waxal islaam dafay tànn ñu ñu war a roy islaam dafay tànn ko war a toppee ainsi de suite day dem ba du jeex donc pour man daal Moustapha boobu dëgg-dëgg jarut a tontu parce que moom wane na réeram ci pénc mi wane na gàtt xamam te ñemewut a live su passé loolu taalibe Cheikh Mamoun Essa bët bu set yónnee ay euh, message suma téléphone man li may wax suma Facebook laay dem wax ko ñeme ko ba bëgg a dee nag waaye su fekkee eh, da nga ñeme li ngay wax am ay argument tàllal sa Facebook wax bul jote si numéro nit ki dara mais ñaar moo am foofu su fekkee ne Cheikh Mamoun Essa ci xam-xam la leen yar dëgg-dëgg kuñ yar ci xam-xam nag mën ngaa tontu ci xam-xam su fekkee ne Cheikh Mamour Essa ci jikko la leen yar dëgg-dëgg mën nga am jikko ju rafet ak jikko ju baax waaye ñoo xam ne saaga seen jikko rafetul kon ka yar jikkoom rafetul wala décevoir neen ko yar na leen ci jikko bu rafet ñu jaar ci njàll wi te daloo nam su fekkee ci xam-xam la leen yar benn ka yar amul xam-xam wala ñoom jër jëriñoowuñ xam-xam bi ndax ku ci wax yàq baat yàq aaya tëb ba naaw taxaw donc loolu maa ngi leen di yërëm di leen ñëwante di wax na dëgg-dëgg bëgguma woon mu <laughs> mu demee noonu man dama bëggoon daal eh, ay waxi borom xam-xam ala kulli xaal sooraaw jaahiliya den koy jàng te liñ cay jàng doo ko appliqué mais luxa bi ak maanaay wax ji ngay jàng tey mënoon na nekk eh, suñ ko tuddee dàgg sante tuddee ko xuloo tuddee ko defante nuñ ko mën a tuddee mais xam-xam di ci génn nit di jëriñu waaye boo dégloo réer boo dégloo dégg fët dégg yàq ci xam-xam yu teeraateer yu suufe yoo xam ne lu ñu waroon a jàll la yow lay gént rek nga cay yàq nan ngay dëggalee maqaama kon you dama xaw a rus daal dama am kersa dama am gàcce ci loolu wax dëgg yàlla dama dama rus dama am lu ma métti dëgg-dëgg te ñoom c'est une occasion pour ñu wane woon ni leen sëriñ bi yare ci moment bi ci jikko yu rafet c'est une occasion ñu wane ni leen sëriñ bi yaree ci xam-xam waaw parce que sëriñ moom xaalam la lay yore rek wala maqaamam léegi nag su fekkee ne xaal bi yow li ngay répondre c'est pas bon c'est très mal euh, maqaama bi ci xam-xam dafa dafa dafa you know doo ko mën a tudd sax dëgg yàlla loolu rek a tax mënuma koo tontu wallahi te gisuma lu jar tontu te li gën neex nag mooy képp ku ànd ak Cheikh Moustapha Guèye moomu bokk sëriñ soo commentaire da nga koy àndal da ngay sàbbal yàlla sàbbal yàlla ci njuumte mooy xamoo ba ki juum mënoo ko rectifier tamit